géej gi nag dina ni tekk wala bokk yëngatu yëngatu bu yamamaay ci diggante ndar ak ndakaaru waaye itam dina yëngatu tuuti wala bokk yëngatu bu baax ci diggante ndakaaru ak sigicoor géej gi ba tey dina fees bu fukki waxtu ci suba tegalee ñaar fukki simili dina feesaat itam bu fukki waxtu ci guddi tegalee ñeent fukki simili géej gi dina wàcc bu ñeenti waxtu ci ngoon tegalee fanweeri simili suñu jant bi ñu ngi kaar mu fenk bu juróom benn waxtu ci suba tegalee juróom fukki simili ak ñeent ñu ngi yaakaar itam mu soow bu juróom ñaari waxtu ci ngoon tegalee fanweeri simili ak juróom ñett pour ñi nga xamante ne nag dañuy woor tey ji eh, amul coppite eh, bu ñu seetloo démb ndax benn simili rek moo ci yokk tey ji fukk ak ñetti waxtu yu tegal fukki simili ak juróom benn eh, lii moo gën a fës ci xibaaru jaww ji tey ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen. Totox moo leen doon may seen météo. Fatmata Ba ñu koy ziar di rafetlu uh, ànd bi ak ñun ci wàllu météo gi jaajëf soxna Fatmata ñu àndaat ak soxna Astou Bène ci bu mbokk yi ci xëti yéenekaay yi. jërëjëf El Hadj Assane nañu dooree kook l'observateur l'observateur mi ñëw ci xëtamu njëkk ci tey ci koppar goo xamante ne nee nañu Macky Sall da ko bàyyi woon Touba koppar googu nag daal di indi ak jiixi jaaxa ndax ñenn ñi nee nañu uh, gisuñu addiye bi ñenn ñi nag gis ne dañoo teg loxo ci addiye googule Serigne Sidi Matar indi. indiwaat ci ay leeral daal di teggi lépp loo xamante ni si eh, jiixi jaaxaa la fa woon ñu des ba tey ci xëtu yéenekaay bi di l'observateur mu dellu siwaat ci jafe-jafe yoo xam ne ay ndaw dañ koy dund ndaw ñooñu nag ñi yegg seen kaw mooy seeni waajur yu jigéen kenn ci sax indi na ci ay seede yu am kéemtaan mu ngi ci xëtu yéenekaay yi l'observateur ci xët moomulee ba tey l'observateur daal di dem dajeek soxna a Touré moom mi nga xam ne moom la yàlla baaxee ñeent ci doom yi soxna Maymuna Touré nag yëkkati ay kaddu da doon laaj ci ñeenti doom nu mu mën a nekkee ci biiram ba tey ci l'observateur ñu dellu siwaat ci jugement bi nga xam ne jagleel nañu ko diggante Luc Nicolaï ak Eumeu Sène jugement boobu la nag daan ne Eumeu Sène dina fay ñaar fukki millions ak ñaar waaye ni ko L'Obs waxee Eumeu Sène dafa langaamu ci ngemb Luc Nicolaï ni dafa fas yéene daal di def euh, appel ki fas yéene def appel bu màggal tubaa gi di jege si mooy Oumou Sow nee na bu ko waayam si takkul fii ak màggal Touba dina am neneen nu mu demee leeral yi ak l'observateur ginnaaw l'observateur le populaire le populaire nag daal di ñëw wax waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy directeur général ki nga xam ne mooy Diène Farba Sarr moom DG APIX bi indi na xayma ki nga xam ne APIX def na ko liggéey bi nga xamante ni si moom la ñu def fii ba tey naka noonu koppar yi ñu fa dugal mu gis ne weesu na benn milliard bés bu ne ñu wax ba tey ci xëtu l'observateur wala boog populaire ci jafe-jafe yi ndox me géej gi ñaari seen bakken ca géeju Malibu keneen ku nekk ci xëtu l'Observateur populaire mooy Ousmane Tanor Dieng nee na nag wuute gi ci bopp pees bu waxtu wi jotee rek dina ci wax oustaz Mor ñu jàll ci enquête enquête nag daal di ñëw ci koppar yi nga xam ne jagleel nañu ko wàllu élection législative yi 2012 ñu gis ne marché bulletin bi dañu ko jàllale ci ñetti milliards ci marché yaama neex ki nga xam ne moom moo yor direction générale bu élection yi Thiendella Fall nee na jur keneen ku nekk ci xëtu l'enquête mooy Mamadou Lamine Keita moom indi ay leeral ne fas yéenewul wala bokk nekkul ki nga xamante ni si Balde moom moo ko ngemb keneen ku wax ci mbiru làmb ba tey moo di Eumeu Sène Eumeu Sène nee na du fay dara Luc Nicolaï ci xëtu suñu journal l'enquête la ñu des ba tey ci euh, xëtu journal yooyu la jàll ci Walf Grand Place Walf Grand Place nag li mu def ci xëtam mooy Eumeu senn wala bokk juge bi yóbbu na Eumeu Sène ci ardo diggante ak Luc Nicolaï ba tey nag ki nga xamante ni si moom mooy quotidien bi di Walf Grand Place dellu si ci wàllu koor gi koor geek colu ñu jigéen ñi mu gis ne maanaam bu koor gi excès sellal moom moo xew jaaykatu dangal yi am ci jafe-jafe euh, guré yi réew mi quotidien dellu siwaat ci loi bi nga xam moom la ñu jagleel sur la parité mu mel ne moom moo nar a nekk jafe-jafe bu njëkk Ousmane euh, wala bokk Moustapha ñas ci boppu assemblée nationale boobu la ñaari député fas yéene daal di attaqué loi boobu maître El Hadj Diouf la mu gis mooy loi bi mbiru rambaaj ak seytaane moom moo ko lal ñu jeexalee euh, suñu làmb suñu làmb ba tey ëmb seen daal di dellu si ci xëtëm daat ne ginnaaw bi nga xamante ni si nag yoon daan na ko ngir mu fay Eumeu di leeral ne xaalis boobu ñu ko tuumaal ne moom moo ko jël mosu koo gis mosu koo teg bët avocat Eumeu indi ay leeral ne euh, loolu yëpp dina leer te fas yéene nañoo def euh, appel keneen koo xamante ni si euh, dafa mer nekk ci xëtu suñu làmb mooy Aziz Ndiaye nee na dafa mere mbër yi nga xamante ni si ñoom ñoo mel ne Gris Bordeaux la mu ca teg mooy des lutteurs comme Gris sont tricheur Alaaji Assane foofu la xëtu yéen kay Astu maa ngi lay gërëm di la ñaan nga génn ci seen diggante boobee ñoom bëri xam nga <laughs> macha allah euh, jërëjëf Astu ñu daal di tàggoog yow ak Oustaz Mor Thiam waaye laata loolee Oustaz Mor baat bi di juubu colonel Momar Gueye sama doom bàyyi dina ko càmbaral léegi waaye lu ci diine wax euh, boo demee ba bëccëg waxuma sekkee nag njaween yi koy tay de di naan mais bu la rëccee mën nga continuer sa koor waaw da ngay continuer sa koor bu moo dàq jàng Sénégal ñu tàggoog mbokk yi incha allah ba àjjuma ak jàmm alaaji Asan xam naa alxames rek ñu dellu bu sobee borom laata loolu altine suñu soxna yi taaru yu ñëwaat fi ànd ak yéen ci yeewu leen jërëjëf Astou Mbène ci bu jërëjëf Oustaz Mor Thiam ñu jàll ci pàcc geneen gi ñeel wàllu càmbar gi tey colonel Momar Gueye dinu rek euh, leeralal baatu juubu ñu daal di ànd teewlu euh, xalaat gi euh, dafa xaw mel ni baatu juum mooy koo xam ni dafa woor jàpp ni mi ngi ci koor gi e mu dem a dem a dem ba yëfi sekkeen wala yëfi njaween dab ko mu fàtte koor ga loxo e, lekk jege ko mu jëfandikoo ca lekk ga fàtte ni mi ngi woon ci koor kon loolu la wolof di wax juubu dafa niroog sax juum te it njuumte la ndax dangay jàpp ni yaa ngi ci lenn ba pare def leneen loo xam ni méngoowul ak loola nga jàpp ni ca nga nekk muy koor gi kon loolu bu ko nit defee moom la ñu naan dafa juubu ci yoon sax dañ naan la bu fekkee ni danga juubu na nga continuer sa koor et ba pare fay loolu mooy baatu juubu te mu mel ni njuumte la te muy am ci euh, jamonoy koor danañu wax sax naan juubu dana yomb jigéen joo xam ni day woor ba pare di togg ndax mos la muy togg daf koy yomb kon baat boobu mooy baatu juubu te muy am ci ñu koy wax ci koo xam ni dafa wooroon ba pare fàtte ni dafa woor mu lekk ñam jërëjëf colonel Momar Gueye ñu koy gërëmati yow saas si wàllu juubu gi ñu ko junjee sànq rek xanaa juubu de kenn mënu cee tricher ndax yàlla moom xam na déedéet xaj Mor xaj euh, Asan tabarakallahu juubu moom kenn mënu cee tricher uh-huh. ndax euh, yàlla aqrabu min hablil waridi uh-huh. ku ci nekk sa buumu xol yàlla moo la ko gën a jege boo juuboo la euh, ci imam Malik la mu wax mooy nit bu juumee naan wala mu juum lekk da ngay continuer sa koor waaye bu woor bu bu koor gi jeexee da ngay fay benn fan hmm. waaye boo tayee nga lekk nag da ngay fay ñaari weer yoo xam ne day toftaloo. est-ce jërëjëf ñu daal di ñëw ci pàcc yeneen ak soxna Bessel Bass koor gi yàlla na fi yàgg tey mbokk yi xaar vie wan leen Bessel nu mu def tey amul bustier amul wane leneen Bessel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Alaaji Asan di ziar rek euh, An di ziar nag euh, sama jëkkër ci plateau bi <laughs> di ziar tamit nag euh, téléspectateurs yi di wax rek saa su ne la ñuy am Alaaji Asan nag tey dama ñibbi nag sama kër yaay. ah très bien mën ah, ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Alaaji Asan di nuyu oustaz euh, Papane di nuyu sama jigéen euh, Bessel Bass di la nuyu itam di ah. nuyu suñu mbokk téléspectateur di la ñaanal kooru jàpp jërëjëf Ibou Diouf ci kanam tuuti ñu ànd ak moom ci wàllu caada gi waaye soxna Bessel tey mbokk yi consommé local da leen demal ci mbokki soose yi waxtaane fondé fondé nag euh, teel na de wax aja bismillah Bessel waaw tey nag dañ leen indi rek li nga xamante ne rek moom mooy fonde parce que gis nañu ne ñu bari dañuy togg fondé des fois fondé foofu ci cité avion daal di fay fekk nag benn famille boo xam ne ñoom dañuy yëngu ci wàllum euh, fonde di ko jaay kon li ñuy def rek mooy ñu seetaan ndaw soosu. dugub taal bu ma ko peesee euh, marché ba pare dama kaa yóbbu ci machine ma ma sokk ko foofu ba mu set léegi nag ñëw yóbbu ko si biti bees ko ba mu set léegi nag maa ngi fas yéene pour sebet bisimilah. am xeer yooyu soo nga sëbër ko ba yaar ko dindi xeer yi saw set na léegi dama koy yar pour xeer yi saw sawaan yi nekk si biir mu dañ daal. léegi ne nii lu ci des xanaa yóbbu ko ci machine ba rek. léegi léegi mu def ay donj yu sew comme ça il faut il faut nga def ko ba mu dëgër fondement balaa muy ne danga koy araw ba mu dëgër ne ni pare na de waa xaaral léegi euh, araw bi pare na banta bi daal pour fonde la ak ay booy togg ay suppu kànja yooyu nga koy jël suñu cosaan la daal il faut nga koy def ndànk ndànk nga koy yëngal waaw <laughs> te euh, xorom tamit defaguma xorom damay xaar su baxee ma doog a def parce que sinon day xaw a def ruy daal léegi maa ngi def xorom ko xorom lay demee xorom surtout sakat maa ñu ci weeru koor bi xam nga su saxee yorom tuuti rek lay def comme que ñu ci koor gi du saf xorom noonu il faut nga def bu mu xaw yam yem tuuti la ni mu ko yëngale nii pour mu bañ a taq ci taq ci parce que boo ko bàyyee même cinq minutes day taq après goût bi day changé waat léegi commencé na baax en moo tax balaa poussé di si dugg ak yooyu moo mu mën a baax bu baax tamit li limam la trom te itam mu am goût daal

jamono bu ñu nekk ni amatul soose amatul olof amatul mais président yëpp xam naa dañuy naan xonne <laughs> Macky Sall xam naa day naan xonne su ma déggee ma de ah <laughs> waaw eh, tey nag lii lañ leen indiloon ndaxte rek ci weeru koor gi nag xool nañ ne kër yu bari dañuy togg li nga xamante ne nag moom mooy fonde eh, dégg ngeen nag soxna si ni mu ko expliqué ci biir eh, nan la ñuy toggee fonde mhm. ci toggin wi surtout léeg-léeg yenn jigéen ñi togg mu daal di dog ak yooyu lan mooy système bi nga xam ne dina dang doonte bëgguma njaga sekk dégg ma <laughs> waa nee na soo bëggee boo bañee pour fonde bi dog doo ko teel xorom doo doo ñuluk cin bi rek daal di jël xorom bi sànni ko ci comme ñu bari sama genre gi ni ñuy def mhm. doo ko def da ngay xaar ba fonde bi di waaj ñor ba mu commencé bax nga soog a jël xorom sànni ci biir cin bi loolu da koy permettre du dog ba pare tamit du dar ci biir cin bi mhm. waaw mu des dencin wi xëy na conservation bi ndax jamonoy coupure ak yooyu xam nga lekk te mu yàqu naka ngay def ba du yàqu euh, moom nee nañu euh, boo xasee daal di jël euh, citron bi def ko ci biir fonde bi donc nga togg ko togg bi nga xamante ne moom la laaj moom moo ci war mu ñor xomm ba boo yëkkatee mbàkku bi nga gis mu takk ci euh, mbàkku xaw ma lañ ko walla mbàkku donc loolu dina tax nga xam ne fonde bi ñor na léegi dencin bi mooy que boo koy denc ci tàngaay bi da nga koy def ci benn bool daal di jël benn morceau bu gaz bu oyof. Mhm. nga muur ko ci bàyyi ngelaw lii laal ko après nga soog a ba nga xamante ne lii sedd na nga jël ko nag ub ko nee na dina def deux jours trois jours yoo xam ne du yàqu du def dara.